Euh, Amadou Ba cofeel ngeen àndee loolu dinaa ko mën a dégg parce que aussi on n'avait pas compris ci présidentielle bi yow nga nekk assemblée di jàmmarloo ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu dem ba tànn jot nga ne fi ñukk Bassirou Diomaye Faye dem ànd ak Amadou Ba et et et par ce par ce geste là tu as raté le train de l'histoire parce que tey boo àndoon nag waa Pastef te yàgg ngeen ànd ci ay position ak assemblée nationale xëy na tey yéenay ànd ci ci li nga xam ne moom mooy euh, législative yi xëy na tey yaa ngi biir Diomaye président. mbaa biir Pastef. est-ce que bëgg poste dana tax nit ñàkk ngor. coalition bëgg poste cohérence politique la. cohérence politique. sa ànd ak ak Amadou Ba c'était incohérent ah. pourquoi. li li nga yow ligne opposition nga nekkoon. waaw nga jékki-jékki euh, élection présidentielle jot mënuloo dem amuloo parrainage. nga ne nga au lieu nga dem ànd ak l'opposition euh, bi bi nga xam ne moom moo fi nekkoon incarné euh, par Pastef ba ñoom Bassirou Diomaye Faye nga ne leen fi ñu ko dem àndaat ak Amadou Ba. xam nga li ko waral bokk na si li ma naan la wax na nit ku nekk dangay ngay ànd sa dignité man Serigne Touba ma gënal post à tout moment ma koy wax ñëpp du ko gis te loolu laa gëm Ousmane sonk sama xarit la sama mbokk la aussi. dinaa ngeen bokkee Sonko ak Mbàkke non non yaayam wàllu wàllu yaayam lan bokkee parce que yaayam Xadi Ngom ak Boussa Ngom mi mu jur ñoo bokk foofu lan bokk non gi ay cousin ngeen nii rek te loolu sax moom yaaya moo ko wax moom wax ma ko man xam nga sàkkuma ko ba ma ko sama yaay waxee yàgg gën a lépp mais loolu mënul ñàkk bokk naa si bi mu amee ay jafe-jafe ñu ko gën a taxaw mbirum Adji Sarr mi responsable bi ma si jël ba démission commission ad boobu booba lii amutoon kenn ñu mutoon a génn foofu boobu député laa muy treizième législative boo xoolee Euh, rapport fictif bi ñu doon wane ci Assemblée nationale man maa ko génne maa ko jox Babacar Touré bu Kéwoulo pour mu tasaare ko yépp ci combat bi la. bi mu demee ba nekk ci ay xat-xat ñëpp daw ko man maa dagg sama voyage Istanbul wàcc ay aéroport def directement këram boobu wéet na lool ma ànd ak moom ci combat bi mu xañ ñu xañ ma nag lu nekk ngir jàppale gu ma koy jàppale. yaakaar naa déclaration bi bokkoon na ci mooy bi ma nee Macky Sall tas na ma ak méridien bi ci buntu méridien yooyu yëpp. loolu moom bul ko fi dolleeti. loolu dëgg la loolu moom bàyyi la te loolu bokkoon na si li tax ka li tax ka euh, nguur gi fi nekkoon bund xataal na ko tëj ma ko sax parce que bàyyil Ousmane Sonko. nangu nañ samay kër dégg ngeen ko ba tey ñetti kër yoo xam ne maris laa ko moo amoon nangu nañ ko si. tax na sama doom feebar ba nekk hôpital fi may wax yow mi ngi hôpital pendant deux ngi mi ngi États-Unis ci jàpp gi ma jàppoon moo waraloon loolu. mais jàpp gi ñu la jàpp si ko wàllu rapport ak sa. sa doom feebar mais tey yow nga toll en état xamuloo sa jëkkër nga xam ko si lépp nga toll en état ñu jékki-jékki ne sa jëkkër jàpp nañ ko yóbbu si kaso bi mais dangay ngay daanu malaise bu fekkente mënoo ko taloore malaise ba mu daan moo affecté si xale bi ba ko da dal ko kon jàpp naa ni kooku la ma ko war def def naa ko Ousmane Sonko bi mu nekk si biir kaso bi bokk naa si ñu ko génn si kaso bi. yow waaw. ana protocole bi kon kon ñuy wax protocole waxuñu dëgg. Ousmane Sonko dafa ne si biir kaso bi ñëpp bànd ne ko muy coalition Yewwi Askan bi ak ñenn ñi ko doon jàppale ñëpp bàyyi ko ma woo imaam imaam Dramé maa ko woo woo keneen koo xam ne tudd turam kooku ñëw sama kër ma ne leen dem ci ay plateau baax na waaye génnewul Ousmane Sonko si kaso bi dama bëgg ñu dem seet sëñ taxa ñu jox ma seen kàddu ni ma bu doon suba pare nañu ma mu sax Yène Mbacké bi nga xam moo ne sëñ mun taxa ni ko man kat njabootu Ousmane Sonko dañoo sàkku ma ñëw si yow pour waxtaan ak yow bi ma waxee si Mountakha mu jox ma rendez-vous ajjuma heure sàngam ma woowaat Imaam Daraame mënuma ko jot mi bëgg dama jot ko mu ne ma man kat du ma mën a dem parce que Jibi Njaay gi nee na ma bu ma ànd ak yow dem suñu Mountakha ma woo keneen ki garabu garab yi nangu te ñëw ma dem seet sëñ Mountakha ànd ak sëñ Moustapha Mbacke doomam waxtaan ak moom ci mbirum Ousmane sonk sëñ Mountakha daal di woo sëñ Bass Abdou Khadir <coughs> daan ne ko day Ousmane dama am suñu ak ñeewantal waaye dama bëgg yónni fa Cheikh Abdou Mbacké mi ci Macky sàll ak Ousmane Sonko ma ne ko waaw bi nga xamante ni wax na ma loolu ñu génn mën a sëñ Bass ci biti sëñ Bass ni ma ah li la sëñ bi wax day kon boo demee lam la wax ci Macky sàll ak Ousmane Sonko nga wax ko boo paree nga daan ñëwaat waxaat ko li la wax ñoom ñaar ñëpp. ma jóge fa ñëw ba toll autoroute bay dugg autoroute bi woo Macky Sall mu ne maa ngi nii sama buntu avion jëm si Dakar ma ne ko sëñ Mountakha moom mu yónni si yow mu ne ma suba 18h45 ñëwal bi ma coupé nekkate Macky la ma ko wax gëmu ko mu woo sëñ Bass Abdou Khadir. sëñ Bass ni ko waaw man ak moom ak sëñ bi ñoo teg ñoo génn léegi sëñ bi moo ko yónni si yow bi ma ñëwee ci Macky wax ko la ma sëñ mun Mountakha wax ci moom ak lam namm ak lam bëgg ku ko defal ci Ousmane Sonko Macky Sall reful lool lool daal ma boo demee ci Ousmane sonk nga laaj ko moom lu mu bëgg parce que la ma wax ak Macky Sall ak la ma sëñ wax nag. duma ko wax parce que wax kilifa la waaye la Macky Sall wax ci yi li moo jot a wax mooy laajal Ousmane Sonko lan la bëgg. daal di woo Aïssa daal di woo Aïssa Tall Sall. ni ko honorable mi ngi fi sëñ bee ko yónni woon ci man ak Ousmane. kon na nga wax ki nga xamante ni moo yore mbirum prison yi ñu fexe ba mu gisanteek moom gise bu yaatu. ba ma fa jógee. ñu wutal ma rendez-vous hôpital principal ma ànd ak maître Ndiaye avocat Ousmane Sonko dem bi ma demee ba àgg yóbbaale sama kaamilu alxuraan parce que man lépp lu may dem na alxuraan moo si jiitu médecin ba fa nekk ni Ousmane Sonko kenn mënu ko gis ñu téléphoné kilifa gi yor arme kii bi administration clinique mu ne ah comme médecin bi wax na loolu day du moom te moom nee na mënuñu ko gis ko lu nga mën a gis ma daal jox kaamilu alxuraan bi ma indi woon avocat bi ni ko après nga joxal ma ko daal génn dem assemblée nationale ba ñetti fan maître Clédor lii woo ma téléphone. maître Ciré Clédor lii waaw maître woo ma téléphone ci plénière bi ne mu Ousmane Sonko nee na 10h45 man ngeen ñëw ngeen gisee ma daal di jóge assemblée. dem ba ma demee fa la ma maître Bamba si sa fekk ñu dem si Ousmane Sonko 45 minutes wax nañ ko man ak moom mu wax ko li ma sëñ Mountakha wax si moom mais waxuma ko la ma Macky Sall tontu parce que loolu suñ bi laa ko a waxaat mais li Macky Sall wax ni man nee na loo bëgg teen wax naa ko suñu waxtaan nag yàgg na parce que am na loo xam ne lu la loo bi fekke na ko. lan la wax ne loolu la waaw am na loo xam ne avocat fekke na ko. Hmm. am na loo xam ne avocat fekkewu ko. Ousmane bi nu waxee dafa njëkk sant sëñ Muntaxa gërëm ma si taxawaay bi ma am daandi ni ma neel sëriñ bi lii mu ma defal mel ni moom kese moom ma ko defal ci xilaaf xalifa yi fi nekk yépp Sonko moom wax lii eh, ah. moo ma ko wax daal ma nee ko li mu bëgg dinaa ko def ndax man jàmmi réew mi rek dinaa moom moomu bëgg moom laa bëgg te pare naa pour waxtaan ak Macky Sall kon la foofu la mbir mi tàmbalee pare naa pour waxtaan ak Macky Sall. kon ñoom Cheikh Diba ñoom. man daal loolu Sonko moo ma ko wax. ñi ñuy tudd ñëpp du pare naa pour waxtaan ak Macky Sall bu fekkoonte du kaddu sëñ bi moo fa ñëw peut-être que ku fu man di ñëw du pare pour waxtaan ak Macky Sall pour jàmmi réew mi. te ba ma ko waxaatee sëñ bi ba ma génnee ba nett li sëñ bi li ma Sonko wax sëñ bi dane waaw jàmm ci jëlee sëñ moom waxoon li waxtaan bi nag am na fa xuloo naa fa ak moom. juboo juboo naa faa moom Sonko waaw bi ñu ñëwee toog di waxtaan ba pare ci kanamu maître mu ne ma yow Cheikh dama la meree ma ne ko man lan laa la def sonk mu ne ma waaw parce que dangaa toog ci palaato nga ne man wéyoo ma ndigalu Sëñ Tuubaa parce que xale yi yàqu Tuubaa ak di taal ci man lan bokk man ne ko waaw parce que waa Pastef ñoo taal station yi ñoo sàcc li nga xamante ni mooy marchandise mi nekk si biir station yi te Sëñ Muntaxa dafa aaye politique si dëkk bi rawat na manifestation te dégguma sa kàddu waaye bu fekkee loolu moo la naqari baal ma àq man na ko waaye may tam dama laa mere Sonko mu ne ma man lan laa la def man na ko Sonko am na maa ba dugg kaso seet si woo ma demoo sama kër jëlaloo ma avocat sama yaay gaañu jaali si woo ma baal ma àq mais lii mas nga ko wax li ma ko wax parce que xamul tax li nga agsi fii moo tam wax ko mais mas nga ko wax benn waa Pastef mu ne euh, Ousmane ko bëggul woon nga génn joxe beneen version ci seen entrevue loolu moo taxoon bi ngeen di waxtaan mu fexe avocat mu fekke ko déggoo ma ni la avocat bi donc lim la wax avocat bi ñun ci kanamu avocat bi la la ko waxee ngir jël ko seede ndax bëggul woon ñu soppi ay waxam demewul noonu Ousmane Sonko xam na maay kan man aw ma jot di soppi kenn ay waxam man aw ma jot sax di nettali ay waxi jàmbur loolu bokk na si Ousmane Sonko li tax mu yàq diggante meeg ñu ñu baree bari ay nit ñooy ñëw di ko li si ay nit yoo xamante ni du li bu rafet man Ousmane lan laa koy waxal lan laay mën a soppi si waxam mais lii ma la wax. waxante nan ko par exemple ka ngay mbubboo woone yow yaa tax ñu libéré. ñu libéré Ousmane Sonko xëy na Ousmane lii la ci doon. soo man waxuma la ne la man dama ne. Hmm. suyee naa si rôle bu am solo ci ndigalu sëñ Mountakha te lii ma la lépp am na. waaw mais léegi qu'est-ce qu'on fait des gens am na ñu bari Moustapha Diakhaté Madiambal Diagne euh, euh, Cheikh Yérim Seck Abdoulaye Seydou Sow. ñu bari toog nañ fii Ousmane Sonko toog na moom ak Bassirou Diomaye Faye ñu ne waxtaan am na seen digg ak Macky Sall ñu bari tamit toog nañ fii expliquer wu waxtaan yi nu mu tëddee à l'époque Pierre Goudiaby Atepa ak Alioune Tine aussi yëkkati woon nañ seen kàddu xam la ne ay waxtaan am na alors qu'est-ce qu'on doit retenir que protocole de Cap Manuel am na c'est par le biais de ce protocole qu'il y a les discussions qui ont permis tout ce qui a été tout, tout ce qui fait par la suite wala que euh, Cheikh Abdou Bara Dolli ak tànk yu mu dox ak euh, ci ci ci kilifa yu baax yi loolu moo tax Ousmane Sonko génn prison lan la ñuy jàpp. man daal la ñuy xam moom laay jàpp ñoom lañ wax yépp xaw ma si dara la ma xam daal mooy la ma Ousmane Sonko wax ni ma neel sëñ bi pare naa pour waxtaan ak Macky Sall pour jàmmi réew mi ba ma ko waxee ba ma ko nettali sëñ bi ba sëñ bi wax ma la ma si wax. foofu la sama xam-xam jeex ci li des leen li des nag mooy la ma jëf ci li nga xamante ni mooy euh, woote loi amnistie bi ak la ma man ko dimbale ci ay sama alal du nekk ci biir kaso bi ma def ko ngir ay ñaan mu génn loolu laa man waaye nag ay cap manuel ak protocole ak loolu xaw ma si dara la ma xam daal mooy la ma suñ mun taxaa wax moom wax ma ko moom wax xam naa ni bokk na si accepté gu accepté pour waxtaan parce que bu accepté waxtaan peut-être leneen lépp du ko jur. Mm. te loolu